Bass Abdou Khader maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Mbàkke di la ziyaare ci occasion bi ñu am tey ñëw di leen sargal ci màggal gi nga xam ni seen maam Cheikh Ahmadou bàmba moo ko liggéey ba sunu borom fayee ko lii ñu ñëw fi nag tey ci tànku partie socialiste daan fi ànd ak sunu mag ak suñu xarit mu jiite woon ñu jiite bu rafet tey ñëw nañu sunuy xol ñëw na mais am na tamit lu ñu manqué mooy Ousmane Tanor waaye nag loolu la yàlla dogal ñu leen koy dénk rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ngeen di ñu ko ko ñaanalal bis bu yàlla sàkk sa diggante ak moom jarul ñu ciy continuer di wax parce que li nga xam ne moom léegi Cheikh Seck wax Mor An wax ko ci rek doy na waaye mottali nga yëpp Mbàkke mottali nga ko taxawu nga ko ñaanal nga ko yàlla na la ko yàlla fay tey nag ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndal tey ñëw fii te daanaka région Sénégal yëpp boo ko compté li ci manqué warul a bari ndax ñi sori sax duñu leen di woon jarul ngeen di dikk ñun bu ñu yeggee rek en délégation représenté nañu parti bi yëpp waaye nag Mbàkke bis bii duñu ko fonk duñu ko fonk ndax dafa yàgg bis boo nga xam ne ca Léopold Sédar Senghor mi nga xam ne ci ñu fonde sunu nation ci la bokk mu daan ko doxal bu baax a baax moom ak Cheikh euh, Fadilou Mbacké di ko dowal ak sëriñ yi nga xam ni yépp fekkoon na leen fi Abdou Diouf dikk ànd ko tamit ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké Ousmane Tanor ak moom itam xalif yi mu fi fekk yépp mu dikk ànd ko ak ñoom ba ñu yegg si fii tey kon lii tradition la pour parti socialiste pour ñu dikk di rafetlu bis bi di teewe bis bi di ki seede tamit li nga xam ne moom lañu ci xam li ñu ci xam mooy ku liggéey di nga jariñu dama doon wax léegi ni Masaalikul Jinaan li fa xew semaine yee weesu doy na daraja pour am réew ya nga xam ne tamit moo fa soqikoo ci wàllu jàmm ci wàllu réew mu dal ci wàllu démocratie bu ñuy taxawalaat yaakaar naa ni masaalikul jilaa jinaan dinañu koy fàttaliku fii ak ay at at ati at ndax la nga xam ne moo fa xew te la fa xew yéen ko sabablu bu ko sëriñ bi sabablu woon le xalif général yéen itam ngeen jàpp ci taxaw ko dox ko ba loola sotti xëy na du woon deme na mu demee kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm lépp luy indi ci jàmm luy indi jàmm ci biir réewu senegal rek ku ci taxaw ku ne ñun ñëpp duñoo war a jóg jaamu leen ñun ñëpp duñoo war a jóg sargal leen sant leen ci loolu kon jërëjëf Mbàkke man sama xaw ma nan la sama doom la sama rakk la sama goro la mais defe naa goro bi man moo gën a neex ci man parce que bisu ne mu teral ma ndax doomu Serigne Modou Bousso Dieng ji muy denc ndax doomu soxna Awa Gadiaga bi muy denc mu xaritoo ak sama doom doyloo ko ba pare ngeen wóolu ko ma di la ci sant bu baax a baax a baax ci loolu man campagne électorale sax léeg leen ma di ko woo di ko laaj ay conseil yàlla bi ñu tiim xam na ko ay 6 heures du matin ay 3 heures du matin ay 2 heures du matin Mbàkke yàlla na la yàlla fay taxaw nag bi nga taxaw képp koo nga xam ni sa waajur la ku fi nekkoon xalif la nga leen liggéeyal yàlla na la ko yàlla fay kontaan nañu trop tey ci sunu bis bi nga xam ne ñëw nañu ko fii teeru bi nga ñu teeru tamit kontaan nañu ci bu ñu ñibbee bu soobee yàlla lu ñu takku woon démb ak bërki démb parce que ñun liggéey rek moom moo ñu tax a jóg. parti socialiste bi ñu koy créé kenn créé wu ko woon rek pour mu nekk association mbootaay goo nga xam ni ñi ne duñ ci nekk am réew la ñu doon wut pour liggéey réew ma te yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo fi jiitu. ci président bu fi jaar rek ca ab ca président Senghor Abdoulaye Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ci Macky ku ci nekk am na loo nga xam ne bàyyi nga ko sa empreinte ci biir réew mi te empreinte booba nag vraiment seen seen seen xalifa généraux yi fi jaar yëpp ku ci nekk ñoom itam dafa am loo nga xam ne danga ko cee jàppoon kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di feddali suñu kóllëre ak Touba parce que ni mu amee woon ci début ba ba nëgëni bu soobee yàlla noonu la ñu koy taxawee taxawu ko ba fu mu yem rek yaakaar naa ni dina dina dina baax kon jërëjëf Mbacke jërëjëf tamit ñoom Mor Anne euh, ci taxaw bi ñu taxawu fii dans le département dans dans la région ñoom ànd ko ak Cheikh Seck mi seen secrétaire général union régionale di gërëm bu baax a baax ñëpp koo nga xam ne rek yaa ngi koy jàpp yaa ngi leen di jàppale ci biir dëkk bi président de la république tamit ñi ngi koy gërëm ñi ngi koy sant parce que gis nañu taxaw bi mu taxawu Ousmane Tanor bi fi Ousmane Tanor jógee ca ba mu yëgee mbir mi ba ba ñuy denc Ousmane ba ba ñuy def ñeent fukki guddi président de la république ñu dara ak moom mi ngi ñu taxawu mi ngi ñuy jàppale yàlla na ko yàlla jàppale moom itam. yéen bi ma yenu nag remplacer remplacer ku toll na Ousmane Tanor Dieng ak ku toll na Abdou Diouf ak ku toll na Senghor yombul rawatina nag bu ñu ko tegee ci mbaggu jigéen yi waaye comme ñoom ñëpp du ñoo d'accordoon ci ni jigéen ñi ñoo yor parti bi. may yaakaar ni loola tamit ñoom góor ñi dinañu jàppale ba fa nga xam ne fa la Senghor bëggoon réew mi dem fa bëgg parti bi dem fa Abdou Diouf bëgg ko tanoor bëgg ko yaakaar naa ne ñëpp dinañ ci jàpp pour que loolu mën a nekk mais daal jàppal ni moom lépp lu ngeen taxaw bu ngeen ñu ci joxee suñu wàll bu soobee yàlla dinañ ci taxaw bu ngeen ñu ko joxul tamit dinañu di ko taxawal suñu bopp Mbacke maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant délégation bi yëpp kontaan nañu yàlla na la yàlla may gudd fan yàlla na yàlla may wér te noonu ñu la ko ñaanale noonu la ñu ko ñaanale le xalif général ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi fi nekk yëpp seen maam moom li mu liggéeyal Afrique li mu liggéeyal der bu ñuul laay wax du ma ni rek der bu ñuul bi bu Afrique parce que der der bu ñuul fu nekk la am ci àddina bi mais tey ku nekk boo sañoon danga naan damay ñuul ndax Cheikh Amadou Bamba ndax la nga xam ni moom la liggéey xeex ko ak tubaab bi xeex ko euh, pour der bu ñuul xeex ko pour sunu sunu sunu sunu réew yi ak euh, li nga xam ne moom lañu fi war a def li nga xam ne moom lañu ñu fi war a doxal lépp aw ci yoon. ñu ngi delloo ab nuyoo soxna Aminata Mbengue Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal ci turu parti socialiste di leen sant bu baax di leen gërëm te bu ma ci tuddee. Euh, Abdoulaye Wilane nga xam ne nit ku baax la ku am ku am positif di nuyu euh, député Cheikh Seck mi nga xam ne moo itam diggam ak suñu kilifa gu baax ga Cheikh Sidi Moukhtar ñëpp xam nañ ko di nuyu Mar Diouf di nuyu Mor Anne bi nga xam ne moo la nekkal ci Touba ak li ko wër di nuyu nag maam Bounama Sall mi nga xam ne maamam euh, diggam ak Serigne Touba ñëpp ko ndax ca xumaag la jébbale woon ci moom ak mboolem ñi nga ànd ak ñëpp moo la xasee tudd rek ñëpp mën nañoo tàbbi ci biir di rafetlu dikk yi bu baax ndax ni ngeen ko baaxoo at mu jot eh, ndax diggante parti socialiste ni nga ko waxee ak yoonu murid dafa yàgg ndax Cheikh Mouhamadou Fadel ku ne xam na ne ak ñaanam tàbbi na ci biir yeneen kiilifa yi mu jamonoonteel rawatina ku mel ne sëñ Si ak ñi ñu ko seqaloon ñëpp ci Sénégal waaye Cheikh Mahamadou Farid da cee jëfandikoo woon baatin ci président Senghor ndax dama koy fàttali rek euh, bi mu ñëwee fii di wut réew mi daam dara moo ko nett la mi ngi toog boo Cheikh Mahamadou Farid dafa def listixaar ndax ñoom ku ñuy àndal rek du ñu ànd ak yow ngir seen bopp waaye dañuy ànd ak yow ngir mbooloo mi ak yitte mbooloo mi Cheikh Mamadou Fadil wax ne ñaar ñi xëccoo de muy sengoor ak Lamine Gueye ku ci ñëw boo waxee ci mbirum jumaa ji yow lay àndal bi ko Cheikh Mamadou Fadil waxee biñ xëyee Lamine ñëw bi mu dikkee Cheikh Mamadou Fadil woo dëkk bépp ci soow jumaa ji mu daal di wax loo ko tax a jug ak la di bëggam mu ne ko Cheikh Modou Fadil teral ko ba noppi yëkkati xaalis jox ko ne ko boo dee nga dimbali ko ko mu daal dem ñu teg ca suba sa wala ginnaaw suba sa président Senghor daal di ñëw bi mu dikkee itam mu defaat ni mu defoon woo ñëpp ñëw bi mu dikkee mu wan ginnaaw nit ñi Cheikh Modou Fadil jox ko kàddu mu wax. mu daan ne ko li may wudde bu moo ko amee naa leen jàppale ci seen juma bi mënta woon wax juma soo bu baax dégg naa Cheikh Modou Fadil ñam sësaloon rek ñene woon ci wetam la yëkkat loo xam ne jël na ko de jël na ko daal di xaalis jox ko na mu ko defale woon kële teral ko Senghor ne ko nag sëriñ bi maa la war a jox jàppaleel moo ko ci defaatal moo ko ci liggéey bi kon kóllëre gu yàgg la goo xam ne lu ne dox na seen diggante buñ toogoon di ko nettali ndax xam naa ci lu bari ndax ñi ko dund ñoom ko nettali kon loolu dox ba ci diggante Abdou Diouf ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké àdduna sépp xam nañ ne ko taxawoon fa mu ko féete biñ fi nekkatu tam suñu xarit bu baax ba Ousmane Tanor Dieng ñaan suñu borom jéggal ko te yërëm ko te xaare ko àjjana doon nit ku baax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 kon nag ñu ngi lay ñaan bu baax yaakaar ñoom ji ñu am ci yow yàlla na suñu borom kàttanal ba fa ko bëgg yóbbu ñu nga yóbbu ko fa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm.